asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama mbokk jullit yi sama xariti gis nañu ay nit ñuy woote ni ñoom yénenti lañu yénenti képp ku woote ni ni moom yénenti la yéeféer la ab fenkat la tamit ku ko gëm tamit ki ko gëm yéeféer la amul xel képp koo xamante ne moom woote na ni moom yenanti la fenkat la ab yéeféer la ndax yenanti bi dafa ne laa nabiya baadi yenant du ñëw sama ginnaaw yenant bi nag waxoon na tamit dina am fanweer nit ñuy woote ni ay yenanti lañu yenant bi nee na ñooñu ñëpp dañuy fenn benn yenent du ñëw ci ginnaaw yeneent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam képp ku ko woote ku ne fenkat la ku ko gom tamit yéeféer la ki woote ni moom yenent la yéeféer la te fenkat la kon nag mbokk yi bu ñu nangu kenn naxuñu bu ñu nangu kenn naxuñu nit ñëw ni moom yenent la yow mi wax loolu dangay fen même sax ñi la invité ba nit ñi di la gis ñoo ñooñu seen wàllu bopp dañoo war a ragal seen boroom ñu xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo wax sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujjëm yenent yéen nag yéen a ngi am fit di invité nit ci télévision muy wax muy wax ne moom yénanti la te xam nañ sax day fen kii di woote ni moom yénanti la fenkat la day fen day duul waaye nag dañoo nekk ci jamono joo xamante ne lu neex waay wax nit jàpp ni moom yeneenti la mu toog ci télévision di wax ni moom yenenti la yan la yàllaa ko yóndi yow seytaane moo la yóndi iblis yow yaay yenentu iblis yàlla yóndiwu la de xam naa tamit déggoo ma yow daal ibliis moo la yóndi waaye jàppal ni yow ab yéeféer nga fenkat nga duulkat nga te ñila invité sax waruñu laa invité ndax mérité woo ñu lay invité télévision ngay toog di woote ni yow yenenti nga annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa xaatama al anbiya wa imaamu al benn yenenti du ñëwati jeex na jibril wàccatul ci kaw suuf jibril soxlaatul dara fii ci kaw suuf waaye nag mbokk yi ndegam léegi nit bu ko neexee mu ne ab yenenti la yow Tunkara nag jërëjëf yow Tunkara Tunkara muusuma laa gis lu dul ci internet bi YouTube waaye dama bég ci yow kontaan ci yow ndax dëgg-dëgg jàmbaar nga yaa ngi tontu ñi nga xamante ne ñoom dañoo woote ni ñoom ay yenenti lañu yaa ngi leen di tontu yal na la yàlla fay guddal say fan man nag maa ngi Espagne dëkk bi ñuy wax Bilbao maa ngi tudd tamit Mouhamed Bari li may ñaan sunu mbokk jullit yi yëpp ñu gëm benn yenenti dootul ñëwati di indi lu bees Isa dina wàcc waaye Isa du ñëw ni wone ni moom yenent bu yàlla yóndi la muy génnee lu bees déedéet yenent yàlla Isa bu wàccee ndax dafa war a dee tamit dafa war a rey ki ñuy wax dajjal masihu dajjal waaye Isa du wàcce ni moom yenenti la wala muy changé dara ci diina yenenti muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nag sama mbokk yi nañu ragal sunu borom yàlla ne benn yenenti dootul am ñun ñu am ñuy woote ni ñoom ay yenenti lañu kon nag mbokk yi nañ moytu ñii di wax lii tamit nañu moytu ñaareel bi mooy nit ñi nga xamante ne dañuy dem di ñaan koo xamante ne génn na àdduna mu koy ñaan soxlam loolu ab jullit du ko def bu ko defee tamit war naa tuub fo yàlla subhaanahu wa ndax loolu bokkaale la xam ngeen ñun tey jamono ji ñu nekk dañoo yaakaar ne bokkaale yàlla ak leneen mooy nit ki dem jaamu ay xërëm déedéet loolu ci la bokk nit ki dem ñaan ku dee koo xamante ni génn na àdduna nga koy ñaan say soxla xamal ni yow yaa ngi bokkaale kooku ak yàlla subhaanahu boo deewee ci loolu yow ak abu jaxal yenn yem donte ni sax yaa ngi julli yaa ngi woor ndax nit dee nga war kaa ñaanal ngay wolbateeku di ko ñaan kooku dina la dégg du la dégg bu la déggoon sax du la wuyu kalla ci ñun kuy dem ci ab bàmmeel nga ne diw may ma lii bu la tontoo wóor na yàlla di nga daw billaahi di nga daw boo demoon ci ab bàmmeel tey nga ñaan ku dee na la may dara mu tontu la nee la waaw xaar ma dinaa la jox li nga ma ñaan billaahi di nga daw doo sax xaar ba mu pare wax nañu waxante dëgg di nga daw loolu nag bokkaale la mbokk yi dañoo war a jàngat sunu bopp ndax tey ñu bëri ñu ngi dugg ci bokkaale te xamuñu sax loolu bokkaale te yàlla dafa ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu annar wa ma lidhalimina min ansar képp ku bokkaale yàlla ak leneen tuuboo ba nga dee ci bokkaale boobu xamal ni yow safara ngay dëkk safara mooy doon sa kër fo ngay sax fa ngay dëkk ba faw doo fa muus a génn te doo am kenn ku la fa mun a génne ak koo munta yaakaar yaa xam kon nag mbokk yi nañu moytu ci bokkaale